salay jiin bismillahi naa nag fi ma koy jeexale mooy euh, euh, par rapport ak fan yi écrit face gis nañ kere Pape Ndoye bëre ñàkk bët set lagros ñëw bëre daan gri de ñëw bëree damit daan ñu gis ni ci sonné woon ni ci activé woon fan euh, maanaam dañu gis benn cohésion laa ko mën a tudde wala benn àndandoo bu jàppante bu dëgër daal ci jamono yi ci ci écrit face loolu lan la. waaw macha allah wax macha allah waaw ah, macha allah kon macha allah waaw xam nga rek mbooloo mooy doole quoi vraiment mbooloo mooy doole tey ñu ñëpp tey bu ñu bokkee lay bokk baare lu ñuy uti day yomb lool lool lool lool lool lool tubaab ne li ñoo fee la force di masawu pam yu baax a baax nag waaw lamb noonu la des fois doo sa comprendre mais da ngay sant yàlla baax xam ne rek xëy na su ma dëgg na li ci kanam di ko ñaanal benn yoon boo amatee combat yàlla dafa ko jàmm moom ay ndam yu bëree bëri bëri Thiat Daouda Fall champion la mun na daan ku ne ndax mbër la wax dëgg yàlla di encouragé tam Jackson di fusiter Lac Rose di ko ñaan jàmm salaam yoon la moom leer nañ bak seet na moom képp ku nekk Fass daal ku am combat yàlla na yàlla may combat yàlla may la ndam ñëpp daa AZ ñaar suñu grand ngir bojoo tamit la 30 yàlla dafa ko ndam. kooku jëm na ci lu mit. waaw yàlla dafa ko ndam bu baax a baax balde balde. waaw yàlla dafa ko ndam di woo waa Medina yëpp nag. karena naa di dégg nga bal Baldé Sil Baldé lañ len wax. kon xam nañ len de. waaw ah, du dara yooyu yokku la. dañu min fi nak ñom dañu min écrit face de. dégg mo xana bal de bal de bo xolé Paate ama bal de lim fi daan bari na. bal le Diouf dafa gey numéro 2 Papa Sow. hein mais le coopération bokul té bo boo té en bal té mu doro am ko am na ne xëy na Fass xaw na tolloo moom mu gir bo do nga jàpp ne gir tolo nak Ama dayo ama ah, li lolu loolu. tan da yàggatul inshallah rabbi mais Ama doo puissance Gris nag yow da nga yaakaar ne. fu muy la de. fu muy jaar te gaynde gu gaañu daa jóge ci defet fu muy jaar Gris nag isaan mën naa dañoo soxla de fas soxla bu baax a baax a baax a baax te gars yi dañoo yow da nga sentir ci Gris lu tax nga yaakaar ne Ama mënu ko yóbbu fenn. déggoo li moo xanaa Serigne Ndiaye wax ak yow de hmm? Ama moo la gën a xam ne ku baax lu ñu ama gën a xam ne. ay jul bale yi si bale yi mun nañu wax parce que rek xam la ay paare bale <laughs> di ko jaamu ndaw ba <laughs> ba sa la garaaw mais moom amaa bale <laughs> xam na ne xam na ne xel na dina xam leneen la waaw hmm? ah, waay. su ngeen maanaam bu ngeen andee bi daal da ngeen ama day am problème pour yéen. déggoo lu dugg si géew bi hmm. diriger ama jàpp ko daan ko. diriger Ama. waaw jàpp ko daan ko Ama mi xam ne bu Abdou wàccee loxoom mu ngi sa kaw nga koy diriger. dëgg la mu xanaa ba 30. incha allah Gris Bordeaux diriger Ama jàpp ko daan ko. diriger kon nga gëm ne maanaam combat boobu ci loo mooy diriger ci Ama léegi. dama nga jàpp Ama nga daan ko te doxee def. yéen yéen a ko naan demal jàppi ko daan. daan ko te doxee loolu da ngeen koy liggéey ak moom. dëgg la ma da koy def hmm? incha allah rabi hmm? maintenant moo soxla Fass moo soxla Medina soxla Fass moo soxla. Mhm. ok mais damay des ci Dakar parce que bu ñu nee Medina Fass Grand Dakar Rebeuss Colobane Gueule Tapée jàppal bàyyil fi nekk nii foofu tamit xat na de mbër yi macha allah bëri ngeen ni ay espoir yi bëri na de. waaw baa ngi mel ni Tulle ak de. non xëccoo amul xëccoo looy xëccoo. non su ma nee xëccoo ça veut dire que fi mu nekk nii tey maanaam dafa bëri espoir boog laa bëgg a wax. waaw mais c'est normal loolu ñaan yàlla espoir dafa. war a gën a espoir dafa war a espoir xam nga di masawu tam du moto mu jugee vraiment bu baax a baax di ko ñaanal jàmm salaam xam nga dafa noonu la vraiment dafa day jeex du dara mais teg waa ci entraînement yi rek la vie continue daal mais Dakar dafa war a bëree espoir làmb dafa war a espoir loolu moo yoon parce que fii espoir yaa ngi génn rek kër yaa ngi naat ga yi làmb mooy seen métier bu bëriwul espoir kër yi du naat na espoir yi bëri mbëri mbooloo mi topp leen kër yi naat suñu waajur yi nekk si jàmm salaam nekk si bonne condition. Ah, am na solo am na solo looy tàggatoo ak looy wax ñi nga xam ne ñoo lay seetaan rawatin tabaski gi nga xam ne ci leen jëm incha allahu rabbi ah looy wax sénégalais yi. waaw mais di sant yàlla bu baax rek xam nga di suma papa suma baax a baax ñu yàgg fi lool tànn ak wér vraiment ñu ngi jëm si bés bu mag nag muy tabaski ñaan ñu yàgg ko at yu bëree bëri bëri bëri bëri bëri bak seen naa Mohamed di nuyu waa suñu papa bu baax ak waa Ndar yëpp ñu suñu papa bara bu baax baax une fois pay su lakom tam ñu koy ziar bu baax di ko bëggee président équipe Père Bass Ndoye dafal yàlla defal pap mo war pa mo won jay yalla yàlla dafal jàmm bu baax baax baax baax vraiment pe Tafaage mom mention spécial dund rek ci ñaanal sama maman jaraf tamit yalla may ko wër ak wérle ba mu dellu soit ci njaboot ci si salam wa wakami xawma sen fay vraiment yalla yalla taxaw surtout wa restaurant bi xam rek Bamba ak sama mafia bi suma coach lañ Fatick Kanté Bodian di ko ñaanal jàmm ak salaam vraiment di nuyu nag waa Medina yëpp 1000 pour cent Medina bi sama président fan club Tampro di ko ziar di ko bëggee di nuyu waaw yàlla nga xamante ne nag ay célibataire lañ balaa diwoon yàlla dafa ñu jàmm ñu fas soxna bak seet naa léegi tax gu mat isaan toll ni baaxal kaasal waaw jot mais am nga koo bëgganteel waaw fu mu ne mu ngi fi fan Dakar fii Medina <laughs> <laughs> mu ngi Medina. non mu ngi fi daal. Medina la dëkk Rëbës Gueule Tapée Colobane Fass wala fa wala Ndar la dëkk wala Bawol wala Ndiaffate. xaw na sori tuuti nag. génn na Dakar. waaw génn na fi tuuti nag génn na fi daal. xale la. lu ma doyee mer lu ma damay mer bu ma doyee mer wala daane États-Unis boog. non mu génn mu daal baax na bàyyi may laaj mu wax loo àdduna mu ngi unis yow <laughs> daal américain ngay lijjanti ko. non mais mooy loolu di salaam baax na. USA dundal ah bu bëri <laughs> ah. <laughs> kon Cheikh Omar yaa ko mën a yaa ko dégg ah sa waay daa mel sori na da ngay jël vol ca réewu hmm? euh, euh, euh, waa ji tuddati. Trump waaw du man a ñàkk waaye léegi Joe Biden moo fa nekk ah? mais per Yves Diaw. waaw Yves Diaw. kan xel bu baax a baax a baax. Mhm. ba muy jàpp sama mbir du tey yàgg na trop. suñu directeur. macha allah kan xel dafal jàmm. Mhm. te du boole dara ak wax. mook soxnaam. Mhm. ak doomam suma copain Cheikh. xam nga ni moom booy defal lu baax occasion rek nga am pour remercier ko. te teraanga raf sa soxol xol. nit ki bu lay woo day jox alalam. te bokk lañ dara da ngay ñaan mu yàgg fi. DG amal jàmm waay. kookoy Yves Diaw du mën a ñàkk kon gars yi lii lañ leen indiloon may nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi yoon seetaan di leen ñaanal jàmm di jaajëfal Cheikh Omar bi nekkoon si caméra bi ah di nuyu tamit bi Amina Prudence Ousmane waaw monteur yëpp bëggee naa leen ñaanal leen jàmm ah waaw c'est la seen leader Dakaractu du mën a ñàkk ki da ngeen jëf salari jiin bismillahi ma dee ci door maam góor gi Njaay sëtub maram jiin